Ah. Ah. waaw conseil yi daal man daal en tout cas daal xam naa ne moom ah, yàlla rek a xam quoi mais vaccin yi man xaw ma daal nu mu demee noonu quoi gars lu tax ñu jékki-jékki rek corona bi demoon na ba jeex ñu jékki-jékki ñu force dañuy vacciné wu waat quoi. <laughs> yaa dégg gars yi wax yow corona bi guddi lay dox. kon corona bi agresseur <laughs> corona bi sonal nañu dañ ko war a xeex. mu jóg fee. ay sa corona am na sax. ah loolu jar na laaj tamit de man de gain ah benn booy de daa mosoon a gis nee na dañ ne ko woon da daa corona ba mu ñibbi dëkk ba. kan fan la. fële Ouest Foire. ah bon waaw ah, ne woon na daa corona de. waaye jox ko ay njëgu garab mu lekk. waaye yow corona su amoon yow temps nekk woon si bi yow corona woo. man moo ma jaaxal man nga xam ne gain ku ma gis nuyu la affaire da bàyyi faal surtout man damay fóon damay sujjoon. corona bi dégg naa da ngaa war a takk masque. da ku ñëw café nga ñaan. ku ñëw waaw gis nga mburu ma ñaan cigarette toxal ma non ma xam naa ne sama fans yi nag dina bëri ñoo xam ne <laughs> buñ ma gisee <laughs> xàmmee nga ma maa la doon may cigarette chaque jour maa la doon toxal ba ak maa ñaan. <laughs> grand su may ñëw ci café gi teg yi def yëfu da ñëw ci café gi salaamaaleykum njaa ngeen jëf Baye Fall maa ngi leen di siyaar lépp taw feex nga <laughs> Baye Fall day muus kii ma ne waaye Fall gaayal man de gaayal <laughs> eh, waaye mais café laa bëggoon a barkeelu rek da ngay kii non non jëlal kaas <laughs> jël kaas mhm. rek dangay ki kii non non jëlal kaas jëlal kaas mu murit yi moom dañoo xër ma jël kaas ah. mais Café Touba moom mais affaire yi daal dafa mel ni Serafal la. Serafal la parce que même jour bañ may bëgg a piqûre vaccin yi sax gars yi Café lañ defoon si biir piqûre bi. <laughs> non boobu da ngaa sa drapeau. non mais bilaay jour boobu nag. li ma la wax yàlla doo soog si waxati ma aju si de ah. ah mooy yow damaa nekk yow sa sa doom di xool sama papa xool sama yuuxu yi xool sama yuuxu papa yi. waxuma la yuuxu yi man yéen yuuxu yi rek ngeen ciy xalaat mais mepp gi ñu mepp ak sumul tubéy ji jooju ñu wax. ak ba war a dekk classe doomam yi ko kaay kaay kaay xool sa papa <laughs> lay yanu mu tëb miir bi <laughs> naan sa doom mu génn école rek élèves yëpp dara ko naan ko wooy ñu ngi may yóbbu de vaccin. <laughs> te loolu loolu doy na waar mais ma moom ah yàlla dina ko fay de waaye man am na lu ma ko jàppal de <laughs> loolu moom tooñ nañ ma ba si kanamu yàlla. <laughs> non billaahi. ba pare waxuma waaye non ah doy na waar nga boo xiifee sax da ngay gën a ñaaw gisoo bañ na ma caméra kase mu ne oh fu ma tourné si internet bi rek gis sama kanam gi foofu ñu ne ko fa ñàpp. loolu na. xaasoo commentaire yi. commentaire. ñu bind si affaire waaye nag ba tey bébé nag boo xoolee de. Ah, waaw tamit nag ku ñëw nga ànd ak ma gàtt. ngay doo Pawlish. ban Pawlish. Pawlish. Pawlish mel na man damaa niroog moom. tay Dubaay. Pawlish mu ne njóoru gàtt tay Dubaay mbaa. kii wax loolu. waaw Pawlish. booy xaar yi ñu koy niroo booy Pawlish moom ñaaw naa Pawlish ak dégradé boobu noonu Baal di mel ni yoonu Mbirkelane bi gaañ <laughs> Pawlish moom moom moom moom Baal maa ko mën moom man xam nga rek maa mënut a rafet lu mais mooy loolu mais eh, bu ma rafet rafetoo def ni gisoo. non billaahi. Eh. sama bañ yi am na ñoo xam ne ñoom. Hmm? ñoom ñoom dañ ma jaaxal quoi nit ñi di woote ñii di maye xaalis. ñii di may kii ñu ne la di may ay bëñ ba man Sénégal lu ne nga fi gis quoi. <laughs> waaye sa bëñ yow yëg nga sa bëñ. gis naa ni mu ñaawee ni non comme oo dafa garaaw. non ni mu garaawee waaw noonu la mais affaire yi l' essentiel affaire bi loolu. am na bërëm bëñ yu weex tàll yoo xam ne seen bëñ yi xasaw xunnu la def man sama bos yi maa koy socc. comprendre nga bëñu Kaolack la nag Kaolack képp ku fa juddoo di ko am ndox mi la. Mhm. boole ko xam nga. xorom bi xorom yooyu noonu xam nga dangay ngay dem ba benn instant day gën a ñuul man sama papa bañ a miin nii la mel sama yaay bañ a nii la mel kon man su ma melee nii wàcc naa. xorom Kaolack. xoromu Kaolack bi la daa mel da ngaa bëgg Kaolack nag. waaw non Kaolack laa am man Kaolack benn son. ñëw ñu may la bëñ. ba man Sénégal sa bëñ yow sa naa ko ni mu ñaawee nii. non comme o dafa garaaw non ni mu garaawee eh, waaw noonu la mais affaire yi l' affaire bi du loolu. am na bërëm bëñ yu weex tàll yoo xam ne seen bëñ yi xasaw xunnu la def. man sama bos yi maa ngi koy socc. la nag Kaolack képp ku fa juddoo ko am ndox mi la. Mhm. boole ko xam nga. xorom bi xorom beeg yooyu noonu xam nga dangay dem ba benn instant day gën a ñuul man sama papa bëñ mi nii la mel sama yaay bëñ mi nii la mel kon man su ma melee nii wàcc naa. xorom Kaolack. xoromu Kaolack bi la. daa mel da ngaa bëgg Kaolack nag. non Kaolack laa am. man Kaolack moom yaa ngi fàtte mos ngeen génne benn son Kaolack yaa ngi fàtte Ah, daa ma nekkoon góor waaw jamono school. mooy ba ma naan fii mooy Kaolack nangaan sama diwaan. yóbbu la bongre kaas naag ba bustaan law na saara samba ngaan suñu teen ku fi ñëw daan naan original melomaan duñu mer di naan ku meree sa dëkk kaam du ma la seetaan teg la ci njoowaan jam la lawal nga jaaxaan no ñii ñooy ndaanaan this is my country ay like it ñun dañu jekk aaru ànd ak fit suñu fit may nañu rey ndeyu nit te duñu ko miim buur bi yàlla moo ñu tiim e bato dem ba fi way. Oh, vaccin moo fi jaar du aaru xar ñaar tax ñu jaar wala harmoniser ñu teendoo arme yi visé MC bu taxal ñu tiire déet fils du aaru tiye wala teendoo kele yi visé rap gaal seen jiite naan di te forcé osé indi sa style imposé ne yaa ngi dosé yaa ngi ciy fuus te mënoo zéro ngay dox teggil sa tànk yaa ngi koy teg ci pato pato yaa ngi jam sa bopp paaka te deew ñu ngi lay dugal ci bameel te fit suñu fit may nañu rey nday nit te ñu ko miim buur bi yàlla moo ñu tiim e fi jant fenkee ba fi mu sowee Oh, vaccin moo fi jaar du aaru xar ñaar tax ñu jaar wala harmoniser ñu teendoo arme yi visé MC bu taxal ñu tiire déet fis du aaru tiye wala teendoo kele yi visé rap gaal seen jiite naan di def forcé osé indi sa style imposé ne yaa ngi dosé yaa ngi ciy xuus te mënoo zéro ngay dox teggil sa tànk yaa ngi koy teg ci pato pato yaa ngi jam sa bopp paaka te deewa goo ñu ngi lay dugal ci bàmmeel te sukuraata goo sa jëmm ji sa turaalaloo bul jaawale laala fonde pam ak fu mu si doore eh, lañu doore moytul yore rab di doore kàddu dafa war a góore nga doon gor gore ni suñu maam ya ca gore ma ne la ën sël ren sël fa sël rab dëggal taxaw fa sël bul di nga dañuy daggal di ja bàccal ma jam la son yu fees paaj lu si tegu di aaj nga ciy tir di aaj ba def tak takk taal dañuy tas tànn takk taal dox def pow mais papa kaa jaama dëgg ah. man Darou Moussi. Darou Moussi kii sant borom Touba rek Fall. kaw ay xolam diis bu 300 am bu 200 jaay bu 200 rek. ñaari buy téye camembert. Ah, buy téye <laughs> booy omb oyof na de ci kawaam bi. baax na baax moo jàpp moo gën a jàpp kawaam bi. baax na bu weex.